nit ci tribune bi yëpp kenn ku nekk sa tour ak sa sant président conseil maitre na fi jot honorable député yi fa nekk ak maire ya fa nekk yëpp maa ngi leen di nuyu di jagleel nuyoo suma xarit euh, suma doomu ndey El Hadj Malick man nag suma kàddu du gudd li ma bëgg a wax waa Kaolack mooy bu kenn ku nekk defee li Baye Ciss def ñu boole ko yaakar na ni kenn du am xel ñaar ne président Macky Sall dina fi am score bo xam du ko am feneen kon nak responsable lu Kaolack yi nañu boole suñuy xol boole suñuy doole boole suñuy xel au-delà de nos ambitions personnelles jàppale président Macky Sall

dégg après les travaux de l'autoroute à péage Ila Touba autoroute Mbour Kaolack moo ci topp dégg ngeen port sec dinañ ko def Kaolack bu ñu draguer le chenal bi jógee ca embouchure océan Atlantique ba ñëw ba ci portu Kaolack dégg ngeen ne portu Kaolack ko bo bolé loolu ak projet yi Baye Ciss am nga xamné ben bu nekk pourvoyeur ay milliers et des milliers d'emplois la yaakaar na ni suñu xel war naa dal ci président Macky Sall ñu jàppale ko au-delà de nos divergences ñu and di dorando di waxando di defandoo ndax Kaolack jëm kanam ma ngi di sant di leen gërëm wasalaam